waaw loolu tamit euh, dinañ ci andi leeral mooy que aji bi yaayam gaañoo mu ngi nekkoon ci maamam suñu benn maam bu ñuy wax satu ndong fële camaya waaw maam suñu maam jooju noonu ak ki jur suma papa ñoom ñoo bokk ndey ak baay ay mag rakk lañ waa mais nag sëyuñu ci benn île bi euh, suñu ki jur sama papa mu ngi sëy île bi nekk jam ñaajo bi fi ñu woowee jam ñaajo moom ñi ko yar tamit moom mu ngi sëy fi ñuy wax maya mais ñoom ñëpp ñu ngi jógee ci benn dëkk bi ñuy wax Fambine waaw noonu la demee. Mm-hmm. tey jii euh, euh, mbir mi ba mu amee ba léegi euh, sa njaboot naka lañ koy dundee ak sa papa ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy sa tante. waaw neexul kenn neexul kenn parce que tamit dafa métti waaw te li muy métti yëpp ñun sant nañu yàlla parce que ay jullit lañu te xam nañ ne nattu la waaw nattu bu ñëwee rek euh, en tant que jaam loo dañ ko war a nangu te nangu nañ ko waaye tamit métti na métti na parce que tamit euh, tax nañu bàyyi suñu ite yëpp waaw kenn ku nekk la nga daan liggéey bàyyi nga ko ngir bokk ak aji naqar wi ngir tamit euh, teewoo ko comme teewoo ko nga xamante ne yéen a bokk. waaw ñu ngi lañ koy dundee depuis boobu léegi. xamante ne moom mooy mbirum viol ba muy tuuma tuumal Ousmane Sonko jàpp nga ni dëgg la. waaw comme li may faral di wax ak li ma waxoon ci audio bi may dellu di wax sénégalais yëpp ne aussi euh, aji sénégalaise la comme Ousmane ni mu nekkee sénégalais itamit ñu bàyyi xel ne euh, lan moo war a mën a tax ñu défendre ne Ousmane deful. lan moo war a mën a tax ñu ñuy dëggal ne aji eh, affaire de complot waaye comme li may wax rek te wax ko fépp fa nga xamante ne fu ma toog ñeme naa ko fa wax mooy la am muy Ousmane muy aji yàlla ñoom ñetti ñoom ñoo xam waaw lépp lu ci waaye di wax te mu nekk loo xamante ne wut ak loolu noonu ah sa ñeme yàlla rek ngay wax waaye la am daal bu man yàlla rek a xam. jàpp ne dañ ko sàkk wala jàpp nga ne dañ ko sàkk. waaw loolu moom laa lay leeral rek waaw foofu yàlla rek a xam parce que fekkeewu ma yeggu ma fa comme yow ni la nouvelle bi dalee noonu la may dale kenn ku nekk am na sañ-sañi xalaatee nu ko neex waaye ci tamit ragal yàlla ak maandu ñun foofu lañu foofu la sukkandiku waaw mooy que lu ñu xamul ñun duñ ci wax duñ ci avancé waaw mais le fait que lépp dem na ci yoon daal ah ñu bàyyi yoon rek mu def liggéeyam ñun dañu gëm yàlla dañu ragal yàlla dañu maandu aussi waa la am yàlla moo fekkee ak ñoom ñaar bu amee ñoom xam nañ bu amul ñoom xam nañ waaw. mbir mi eh, nan ngeen ko yëgee ci média yi ngeen ko yëgee wala Adji Sarr moo leen avertir wax leen ne dañu ko sàkkoog yooyu. waaw xam nga Sénégal tamit eh, ñaareel parfois da ngay déggee ay mbir ci ay coow waa parce que mën na la fekk ci lieu boo xamante ne mën na ñàkk réseau. comme mun nañ la woo duñ la jot waaw ñu oo nit euh, jot ko wala itamit euh, nga nga dox ba nit renseigné la waaw man moom su ma lay wax rek te yàlla tax man maa ngi ko déggee ci réseaux sociaux yi après nag euh, par la ci la ko envoyé audio déggante ak moom waa ci ban maa nga ko yëg. waa jàpp naa su ma juumul daal bi mu amee deux jours su mu fekkee juumul ma Mhm, bi ma amee deux jours ci laa ko yëg. ba nga ko envoyé audio lan nga ko ci wax. waaw dama ko ne coow li may dégg il wax ak man mu a xam li xew lan la parce que dañuy dégg nii rek te xamuñu pour ñu xam nag yow ki nga xamante ne yow yaa ñuy mën a wax lan moo am waaw après bi ko envoyé audio bi def na benn moment moom tamit mu delloo sama audio bi ne ma dinaa la oo. diggante gi la ma oo parce que def nañ diir boobu coow li jóg na ci diggante gi la ma oo waaye tamit ñu waxtaan waa li ñuy waxtaane mooy que il faut tamit nit ku nekk rek boo amee sarak wala sa sa kilifa tiim la tamit foog mu laajte la ndax yaa ngi si jàmm wala mu dalal la ba pare dalal say xel laaj la ba xam yow fi nga nekk ndax yaa ngi lekk yaa ngi naan mbala yaa ngi si jàmm waaw ci loolu nag lañ njëkk a waxtaane waaw bi ma laajee loolu yëpp nag wax na ma wax dëgg yàlla mu ngi si jaam mu ngi sant yàlla. Hmm. mais jàppoon ne problème bi bu mu amee si saase bi ñu ko violé noonu ci li mu wax dafa waroon a ñëw ci ay mbokkam ñibbisi toog wax ak ay waajuram wax li ko dal ñu mën a àndandoo yéen ngeen porter plainte mais euh, décision bi mu jël euh, toog euh, gisoo leen ko amu leen ci moom ay nouvelles est-ce que du xaw a andi ay jixi jaaxa si keelu askan bi. waaw xam nga lu mel ni tamit du dal ci kenn ñu ne eh, gisewuloo ak say mbokk bu fekkee gisewuloo ak ñoom wala tamit déggantewuloo ak say mbokk loolu xel mënu koo nangu waaw te it foofu damay leeral comme naan comme ñun famille bi wala papam da ko sànni wala ñun famille bi dañ koo sànni loolu noonu tegul fenn amut waaw pour xamal nit ñi ne aju bu nekkee si jàmm ñun xam nañ ko bu baax a baax a baax yéen ngi déggante ak moom. waaw ñi nga xam ne moom mu ngi si jàmm bu baax. waa pour confirmer nit ñi ne xam nañ ne aji. ñu ngi si jàmm ñu ngi si jàmm joo xamante ne macha allah alhamdulilah. waaw par téléphone lañuy déggante. Mhm. mais est ce que loolu tam du dëggal li ñu wax ni aji dañ ko làq. non non non loolu mënul dëggal ne aji dañ ko làq. déedéet ñu ngi ko dëggal. parce que itamit euh, ñun doyadi wu gu tax ñun ñu bëgg a gis suñu rakk wala suñu doom. ñu xañ ñu ko loolu mënul nekk loolu it nekkul sax lu xel war a mën a nangu waaw comme ñuy euh, dégg naa benn émission la xaw ma euh, kii dàmbooj mu ne papa yi aji ñëw na Dakar wër na aji pour gis ko ba sonn ne euh, mënu koo gis loolu amut sama papa xam naa ko kilifa la boo xamante ne lépp lu ko soxal loo xamante ne bëgg na koo am dana ko ami rawatina nag ci doomam waaw comme li ma wax ci audio rek puso la moom day ñaw day defar du tasaare waaw pour dëggalaat nit ñi ne daam mbóoj wax jooju noonu mu wax du dëgg du dëgg sama papa ñëwul benn yoon dakaar di wër aji te mënu koo gis loolu noonu amut waaw mais ñun xam nañ ne aji mu ngi si jàmm Euh, tey ci euh, problème bi am na naam mais ku su nekk yaa ngi génn ci média yi di wax dañuy jékki xëy ba ñu ne kii tantay Adji Sarr la wax na ci média bi wala ñu ne kii mbokk Adji Sarr la ñu ne xaritam la xamoon na ko Liberté 6 la yaroo ñi la naan ginnaawaay la màggee est-ce que mën nga ñu dellu tuuti ci parcours Adji Sarr ak ñi nga xamante ne génn nañ jël kàddu di wax ne ay mbokkam lañ est-ce que loolu yow tey ji mën nga ko dëggal. non ci ñoom mënuma dëggal seeni wax wante nag euh, damay weddi ñoom seeni wax. li tax aji ba mu jógee maya jàngee fa après dem jënd jàngee foofu noonu bi mu jógee jënd ci la ñëw Dakar te bu muy ñëw Dakar suñu kër la nekk suñu kër la nekk euh, ginnaaw raay suñu kër la nekk nekk foofu noonu ak ñun ba benn instant itamit euh, mu ngi sol di dem Grand yof ci tàntaam bi mu jógee ginnaaw ci kooku la nekk te dellusiwaat tuuti ci ñi nga xamante ne jot nañu yëkkati ay wax yu ñaaw jëmale ko ci kawam di wax nit ñi ne rek ñun dañ ñoo yar te ay jullit lañu dañ gëm yàlla comme ni may wax toujours rek ragal yàlla ba tax na du ñu xaawi suturaay kenn waaye ñoom ñi wax leer na leen ne ñoom li ñu sosal aji te du dëgg ñoom ñoo gën a yées aji comme ni koy waxee ci audio bi dama koy damay delluwaat di ko waxaat ñoom ñoo gën a bon aji ñoom ñoo ko gën a yées ci zaahir ak ci baatin comme ni ma ko waxee mooy ku jigéen ki njëkk a wax bari na wax yi mu wax tam ki nekk ginnaaw raay mais li mu wax comme nit ñi ñu ngi koy dégg si audio bi su ma nekkee tamit di ci répété euh, dama yaakaar ne temps bi day dem waaw mais comme pour xamal nit ñi ne. xam nga ñu wax dañu bëri boo si mënee cofaale benn wax rek. waaw comme mooy mooy comme nabu rek femme bi dëkk ginnaaw raay ak euh, xale bu góor bi nekk tamit euh, extérieur Italie ñu koy wax Yeesu ak femme bi mujjee wax démb ak eh, femme bi ne aji dem na Fatick te aji mosul dem Fatick yaa ngi dégg waaw kii wax ne papam dañ papam da kaa génne da kaa mere muy nabu loolu amut suma papa man dama dem ba benn instant sax damay xaw a am fiiraange ndax jigéen ñi sax la gën a bëgg ko man kon kooku di jël doomam di ko génne ci biti waaw muy yusu bi nga xamante ne itamit eh, wax na ne aji jël kat laag day créer ay problème non non aju du jël aju du sàcc aji dañ dañ def ci moom yar ju baax comme ñu man nii di wax yow man ni ñu defee ci man yar noonu lañu defee ci moom yar yar goo xamante ne ku mu gis jox la cër ji nga moom te liggéey lañ ko xamee day daan dooleem xam nga am jom am fulaak faydaam peut-être lii nag moo mën a ñëw rek kenn ku nekk di wax te xamuñu lu ñuy wax wala ñu nekk di sos mënuñu ci dara nag. waaye tamit mën nañu leeral nit ñi ne ñoom li ñuy wax teguwul fenn dégg naa ko ci wax ne aji sëy na ba am na xaw doom aji mosta sëy mosut am jëkkër mosut sëy am jëkkër mosuñu toog sax ba gis koo xamante ne ñëw na ne eh, may bu njëkk laa ko andil wala dama koo bëgg comme soxna mosut am aji mosuta am doom mësut sëy mësut am doom. dañu wax ñu ne euh, li mu def Ousmane Sonko nii tey diil la te am na beneen professeur boo xamante ne jot na ko dund ak moom teg na ko diil bi tamit. waaw mais kon ñu dégg ko kon dañ ko doon dégg avant su doon ne lu am la kon dégg nañ ko bu yàgg avant lii kon su fekkee ne euh, lu ñu wax la te mu doon loo xamante ne am na ñu dégg ko avant kon bu jëwaatee ci lii rek kon dafay yomb kon nit ñi dañuy gëm ni kii nii ci lii nii lay dund. mais loolu yëpp amut bu amoon ñun ñu xam ci dara maa ngi koy soog a dégg nii sax ci audio yi ak ni ñu koy wax. mais loolu noonu amut. tey ji su ma la déggee ci say kàddu euh, da ngay dëggal ni sa waajur bu góor mosul génn Adji saat ci këram. non non mosul am mosut am. léegi ñu naan ay tàntam lañu ay ay ay ay sëram lañu ay jabaru euh, nijaayam lañu ko dañ doon sëy yooyu noonu ñooñu ñooy ñan kon. non xam nga comme bu fekkee comme ki ma la njëkk a wax ne nabu ne tantam la xëy na mën na mbubboo ne tantam la waaye xam nga ci ñaar liñ mën a xam ci tantam mooy ki ki ki nga xamante ne mooy ki sa papa takk wala sa rakk yaay waaw kooku nag sama papa takk ko te nekkul rakk yaayu aji yaa ngi dégg. déet non kii di wax naan ni fi mu wax lieu bi mu wax ne foofu la aji nekkoon te tamit nijaayu aji foofu amul benn nijaayu aji bu fa nekk muy jifir gi muy wax. ma yaakaar ne xëy na tey aji buy am ay nijaay ay nijaayam Grand Yoff la ñuy ne wala ci dëkku yaayam mais Jifeer ay rakki papam la fa nekkaloon ci ñooñu noonu la yaroo eh, te ñooñu ki maire bi ma la wax ne Satu Ndong moo jur ñooñu kon foofu aji amu fa nijaay ay ay mbokki papam ay magi papam ak ay rakki papam ñoom ñoo fa nekk waaw ñooñu di wax nag mooy eh, femme boobu noonu xam nga lim fi jël na ay fan hmm? jamono gi muy wax la jamono gi muy wax ne jamono googu la aji nekk euh, jifeer boobu iPhone siwul wala boog bu siwee siw googu noonu ko bariwul ñu ko fay yor wala boog aji capable pour jël pour jël téléphone cent pour sax day jël ay iPhone hmm? bu ñuy wax daal comme man li may wax toujours na ñu ragal yàlla nañ delloo suñu xel tamit ci yàlla te itamit ñu xam ne ku fi dee rek ak sa bàmmeel ñu ñaanal ñëpp ñu am jàmm moo gën ko kenn ku nekk di génne ay audio di ko jëmale ci aji te wax ji du rafet. te lépp ay sos la. kon ñooñu ñëpp duñ seen mbokk duñ seen dara. non man ñooñu ñooñu ma leen comme mbokk parce que mbokk du yàqi deru mbokkam mbokk mooy ki nga xamante ne même su la xamaloon lu ñaaw war naa mën a taxaw suturaal la défendre la même bu fekkee yaa tooñ man tey bu tooñee bu tooñee nii ma toogee nii mën naa toogee nii jéegalu ñëpp mais buñ ko tooñee aussi nii ma toogee laay toogee wax li ma li ma xam li ma bëgg a wax waaye mbokk nag noonu lay taxawee. mbokk doo taxaw taxawaay boo xamante ni da ngay yàqamti musibaaw nit ki te ñooñu di wax mais laajuñu leen ku leen laaj kan moo leen yebal wala kan moo soxla ñoom seen avis kan ak lan moo tax ñoom ñiy wax ku leen laaj ñun loolu lañ bëgg a xam waaw lan moo leen wax loo Adji Sarr euh, euh, ñu ngi naan âge bi mu joxe abu ko ñaar fukki at la am am na ay frère am na ay sœur ñaata rakk la am est-ce que nga ci dellusiwaat ay rakk eh, ci côté baay benn rakk la am. ku bokkal ndey ak baay. non gisuma nag ku mu bokkal ndey ak baay kenn man nii la bokkal baay ak suñu beneen rakk ñu koy wax faatu. li ma leer te wér mooy. aji ba ko yaayam di bàyyi fii gërëm na ko te ñaanal na ko parce que dégg naa itamit ñuy wax ne yaayam li ko rey dafa jóge ci aji saar loolu amut parce que yaayam ku ko bëggoon la ku baax yàlla na ko yàlla yërëm ku baax man ñii nga xamante ne eh, man maay magi aji def na ma comme aji parce que ci lu bari lañ doon waxtaan daf ma doon conseil di ma digal lu baax waaw ba nii muy làqu kon kooku lu ma rewul aji benn yoon ah dégguma ko boog dégguma ko te yëguma ko. léegi seen tante bi ngeen nekkal actuellement te sa waajur bu góor di ko denc lan mooy seen relation ak moom ak relation ak Adji Sarr est-ce que rataxoon na. waaw kooku sama yaay la. kooku amuñu fayam parce que xam na ne kuy nangoo jël aji di ko toogloo ci kër toogal ñu yem nii ñu toog ñun ñëpp bu ñuy naan ñu naanandoo bu ñuy lekk ñu lekkandoo bu ñuy nelaw ñu nelawandoo kon kooku amul benn intention bu bon ci aji kookoo ma yar ba fii ma toll nii di wax ak yow def jikko yu rafet ci man aw ma fayam macha allah ñu koy wax Mariama Sarr eh, képp ku dëkk ginnaaw rek xam na ko. Mariama Sarr moom ginnaaw raay fii. Mariama Sarr mu ngi ginnaaw raay. waa te gàcce ngaalaama mosu ca toroxal aji mosu ko génnee lu mooy da koo bëggal lu baax kaay ñu dëkk kaay ñu toog nekk famille dañoo bariwut sax nag biñ fi ñu dëkkee kon kooku kenn mun taxatal kenn. Euh, jamono ji euh, bi mbir mi amee gis nañ ne euh, nekk na problème boo xamante ne wër na àdduna bi yëpp ndax ki muy tuubaal mbirum viol du koo xamante ne ku nit bu ndaw la leader la am taxawaay boo xamante ne am cër bu xam ne aussi nit ñi jox nañ ko ko ci réew mi bi mbir mi amee seen famille naka la ñuy dundee côté sécurité bi est-ce que nit ñi duñ leen sonal di fa ñëw ak yooyu presse beeg waa koñ ba di leen sànni ay baat ak yooyu noonu. waaw fii nii pour man. sauf respect bi ma jox Ousmane Sonko yàlla rek a rey kenn reyut ñun ñëpp ay doomu aadama lañ ku fi dee ku ne juróom ñaari pelka mètre pelka dañ lay yóbbu kon rëy amut yàlla rek a rëy waaw ci côté journaliste yi nag ñoo xawoon sonal nit ñi waaye man nii kenn su ko dajeeg man parce que man xam naa suma bopp duma ma tooñ kenn du ma def lu neexul kenn waaye doo teg tamit loo xamante ni neexuma waa ci kenn menacé guñu nag. xaw ma nag waaw nag amagut waaw benn instant tamit journaliste yi daal ñoo xawoon sonal nit ñi di jaabante di dugut di génn te kenn waxut ak ñoom. waa koñ ba sonaluñ leen di leen sànni ay baat. non waa koñ ba duñ ñu mën a sonal li tax mooy waa ba ñëpp baax ay borom yu baax lañ nit suñ koy waxal loo xamante ne du dëgg wala ñuy yëkkati ñu metti di ko teg ci deram am na ay dëkkandoo balaa mbokk yi am na ay dëkkandoo. kon dëkkandoo yooyu noonu ay dëkkandoo yu baax lañ man ne dégguma fu dëkkandoo waxee lu ñaaw lu mooy kenn kii njëkk a yëkkati vocal wax tasaare ko wax wax ju ñaaw muy nabu waaw muy sëy nabu mu dëkk ginnaaw moom moo njëkk moo njëkk nekk jigéen ji yëkkati wax ay waxam yu ñaaw mais à part kooku nag dégguma benn dëkkandoo goo xamante ne yëkkati na wax ju ñaaw jëmale ko ci ñun ah dégguma ko boobu bi mbir mi amee ba léegi seen waa kër sa yow sa tante bi ngeen nekkal actuellement ak sa papa ba léegi kenn dégguleen woon ngeen wax ak lan moo tax ngeen toog ba heure bi ngeen soog di wax. waaw maandu rek xam nga maandu dafa baax doo fekk tamit ñaar ñuy xeex nga ñëw yëkkati kenn ki teg ko jëm ci kenn ki balaa ngaa àtte wala balaa ngaa wax li nga xam ci xeex bi il faut nga xam il faut nga xam si dara ñun nag duñu wax ci loo xamante ne xamuñu ko. suma papa comme li ma la sànq rek kilifa la gu mat kilifa waaw xëy na bu heure wax bu jotee moom waxam bu jotee dina jàkkaarloo ak sénégalais yépp wax ak ñoom parce que ragalul waaw noonu la demee dañoo maandu rek dañoo maandu dañoo maandu itamit dañ ñoo yar waaw loolu kese la. lan ngay wax ci Sénégal seen taxawaay ci problème bi lan la war a mën a nekk. waaw fii tey ak dal ñu delloo ci xel yi te ñu xam ne Sénégal gi ñun ñépp ñoo ko bokk. waaw di leen ñaanal jàmm ak salaam ñu teewaat rek te dalaat bu baax a baax a baax ñu defaat ndànk ñu bàyyi lépp ci loxo yoon te ki tooñ bu ñu xamee ne bés bu ñu xamee ne yow yaa tooñ rek soo mënee baalu nga baalu soo mënta baalu tamit ka nga tooñ lu ko ne mën na la koo def waaw mais sénégalais yi nañ dal ñu xam ne taal pneu yeeg yàq oto yeeg xeex ak police yeeg gendarmerie yeeg yooyu yëpp amul benn njëriñ. kenn ku nekk na xoolee aju saar comme bu nekkoon sa rak lan moo tax aju néew dooleen lan moo tax lan moo war mën a tax rek nit ñi waruñu ko mën a taxawu même su fekkee def na am deful lu tax nit ñi war a mën a jël dëgg gi yëpp jox ko sonko rek euh, jël toor gi bu ko këpp ci kawam xanaa du nit xanaa du ab sénégalaise a ah, man daal maa ngi ñaan jàmm ci réew bi di wax ñëpp ñu dal tey xam nga ñu ñaan